li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna. yëngutul Serigne Touba fii ci Maam Jaara. benn waxtu rek. benn waxtu rek. mën na cee defal kooka léppam. benn waxtu rek suñu borom mën cee defal kooka léppam. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa tey dama siyaare si Poroxaan ni ma koy defee at mu nekk bu màggal gi jubsee ma ñëw siyaare si sama sëriñ siyaare si sunu maam soxna maam jaara eh, rax ci dolli nag eh, sëriñ Muntaxa di sama sëriñ di sama xarit yàlla def muy sëriñ Touba tey mu ñëw siyaare si ko ndax at yi yëpp dinaa koy siyaare si Porokhane di ci ëpp sax bisu màggal gi la waaye bëgg nag jotaay bi yaatu moo waral ma ñëw fii lu jiitu màggal gi ci am mbégte nag ndax euh, xatul jot naa dem ci barabu maam jaare ba siyaare fa toog fa nam ma neexee jóge fa ñëw ziyaare sëñ Muntaxa ak njobootam mu jiitu ñu tisbaar dalal ñu fii mu ñu dalal euh, kon daal dafa mel ni taalibe bu ñëw seet ci sëriñam la digganteeg sëñ Muntaxa moom diggante taalibe la ak sëriñam mu rax ci it euh, soppe goo xam ne am na fu mu commencé waaye amu fu mu tàmbalee ndax euh, ba may xam sëñ Muntaxa dama seetlu woon ci moom di dajeek moom ci ay xew ay nit ñu wàññeeku may dem di jaale ji waaye kër gu ma dugg rek ñaare falaa koy fekk wala mu fekk ma fa ñi ma àndal de ma leen ah sëñ bii de xaw ma ko waaye ku baax la ndax eh, am ab taalibe mu génn àddina nga sol sa dàll jóge tubaa di ko wër di wër ay mbokkam di wër fu taalibe faatoo nga dem jaale ji ah kooku sëriñ boobu nag loolu la ñu doyee sëriñ ci la ko ràññee mu ràññee ma fa moom itam ma fexe ba euh, xamanteeg moom euh, li ko yokk sax di suma benn jarbaat boo xam ne doomu sëriñ Cheikh Assou Fall la muy sëñ Modou Bousso Mbacké euh, woy juróom wu jigéen di suma mag soxna Yande bi mu jàngee ba jóge ci njàng ba Égypte ñibbi si Sénégal fekk booba maa ngi ci gouvernement bi mu ñëw xamal ma ne jeexal na jàng waaw ma ne kon dinaa fexe Euh, lu ma mën pour euh, dugal la ci biir mbir yi dinaa ko def ci noonu laa ko jël daf ko conseiller sama ministère euh, comme amoon na lijaasa yu wóor ñu fexe ba dugal ko fonction publique aussi tey mu nga ca consulat Sénégal ca Bordeaux nekk fa diplomate teetlu naa ne mun taxa dinay taxawu njabootam muy njabootu boppam wala muy njabootu ay frère am it yaay màndarga ci mbaax gi nga xam ne def na ko donc ak yu bare bare bare du loo xam ne kenn du ko wax ci télé fekk naa ko Mbul Kayel fekk naa ko Touba plusieurs fois ndax at mu nekk bu ñu màggalee ba ci suba ga ñaare damay dem këram fa lay añee at yi yëpp euh, ba euh, at mu nekk daal dinaa koy dina ñuy gisee dina ñuy waxtaan moo xam muy Kaolack moo xam muy Poroxaan moo xam muy Touba waaw moom daal euh, am naa ci moom mbégte lool ak ñun taalibi murid yëpp am nañ ci moom yaakaar di ñaan sunu borom rek. mu wéral ay cëram guddal aw fanam eh, mu yàgg fi lool liggéey bi nga xam ne fekk na ko fi ñi ko fi jiitu sumb ko liggéey boobu mu mottali ko bañ daloo ko ci jàmm ak salaam eh, boo ñëwee poroxaat gi xam ne moo fi nekkal eh, sëñ Touba gannaaw sëñ Moustapha Bassirou da nga xam ne am na ay jéego yu mu fi dox yu baree baree bari ñu daal dañ koy ñaanal rek di ko sant. bu ma ko fekkee mbul kayel moom ma koy fàttali bu yàggul rek daf ma dénkoon soxna Bali euh, ne ma yow mii féetal naa la soxna Bali waaw donc soxna baali li ñuy gisee bariwul nag waaye euh, comme dénkoon na ma ko ca mbulkayel daanaka booba 2010 la woon yaakaar na euh, ci diggante bi dina ñuy daje waaye benn yoon lañ gisee donc gisee bi bariwul moo tax it tey bi ma ñëwee ganesi ko mu ne ma daal maa ngi lay féetalee kër sa soxna Bali waaw ma am ci mbégte nag eh, ndax bi ma fi ñëw it maa ngi ànd mbokkam ndax eh, sëtam laa àndal eh, ci genn wàll gi mu wax na ma sax mbokk gu mu demee ak Serigne Cheikh Gaynde Fatma parce que daf na bone ne ma Serigne Cheikh moom kat maam la ci man ci genn wàll gi di bàyyi ci man ci genn wàll gi di mag ci genn wàll gi yëpp nag mu tojal ma ko sama soxna si ma àndal nga xam ne. Eh, sëriñ Cheikh jur waajuram di sëñ Mbàkke Soxna Lo eh, kon nag mbokkam la eh, saa yu ma nekkaan nag moom nag dinaa ko woo téléphone paas ko ko ba ren nag mu ne ko nag jox naa leen ndigalu nga ñëw poroxaan moo waral yoon wii nga xam ne maa ngi moom ko bokk ñu ñëw fii mu siyaare si maamam soxna maam jaara ñu yendu fi incha allah moom bu fi jógee day wéy Tuubaa ca soxna maam Fatima Remelo mi nga xam borom këram dafa génn àddina dem siyaare ji mbokkam yooyu li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaasal minna